après manquement yooyu c'est pas à mon niveau. donc on le reproche plutôt à, de. Euh, pour euh, souhaiter la bienvenue à Kia. lu lay def bi yoon. ma bàyyi la nga nuyoo. jéem a eh, ñu dem. na biir ñu dem nuyu bu dee tontom ak euh, CV yi Pape Samba Thiam CV yi pare na ñu jàll ci ñaari CV yi nga xam. non non demee demaguñu ci CV yi nuyoo ba pare. nu yoon ah, jërëjëf rek ma attaqué fi ne nii amatuma sax fit nuyu respectateur yi yaa Pape Cheikh Diallo ngeen bëgg ma def retardataire bi du ko nangu. waaye ca ñu ñëw ci yàlla def na ni man damay yendu yenn saa yi ci télé bi ba guddi fekk yéen ñëpp ngi seen kër yi damay leeral rek. ku nekk sa liggéey. waaw Dieynaba euh, am na ñaari CV ñu tànn euh, muy CV euh, Fatimata Seck ak CV Biram Ndour on démarre avec celui de Fatimata Seck donc qui a eu son dernier diplôme 2013 2014 un BTS en comptabilité gestion à CFPC et concernant ses expériences professionnelles septembre 2012 novembre 2012 elle a effectué un stage en comptabilité à Sodagri 2013 2016 elle a été caissière et chargée de la clientèle chez Noura Traiteur

donc Sénégal-Japon et admission au brevet donc de technicien industriel, un BTI en électronique. Euh, toujours euh, aujourd'hui, il est en train donc de poursuivre une deuxième année en maintenance réseau à Subinfo Dakar. Donc c'est un BTS en cours concernant ses expériences professionnelles. Août 2014 à juin 2014, il a effectué une, un stage dans une société du nom de GEEI donc euh, Général Énergie euh, études et installations euh, pour contacter Biram Ndour ce sera par mail toujours à biramndourcollé@yahoo.fr alors euh, merci Kia CV yi tey rek nga ñu indil tey ah d'accord ok je pensais que dañu indi leneen li ñuy wax tàngal meew alors euh, voilà Dieynaba démb dama demoon fële ca Euh, foire euh, plutôt euh, quatrième salon de des mines mhm. bi amoon voilà sim bi amoon mhm. fële ca King Fat Palace mhm. j'ai tendu mon micro à monsieur le ministre Aly Ngouille Ndiaye j'ai tendu mon micro à au directeur de Sabadola Sabadola également et aussi euh, le directeur général de Maritalia parce que boo nee euh, mine euh, di nga tudd ci di nga dugg ci exploitation mhm. des minières di nga dugg également euh, ci li nga xamante ne mooy transport mooy logistique bi okay. parce que c'est c'est une chaîne alors malheureusement on n'a pas eu le temps de monter ça donc non, lundi inchallah dina ko tegal donc téléspectateurs yi surtout euh, pour parler de l'emploi dans dans le secteur minier c'est très important ñuy faral di yenn saay di kaas ci ay information yoo xamante ne amaana amuñu ko sax lan moo tax sénégalais yi du ñoom la ñuy jox ñu exploité amuñu euh, mhm. licence yi pour exploiter yooyu yëpp dinañ ci ñëw ak le ministre mais également dinañ ñëw ci li nga xamante ne mooy entreprise privée yooyu ñuy kaas euh, euh, lan moo tax ñu nekk euh, par exemple fële ca Kédougou mm-hmm. ku ci mel ni Sabadola lan la ñuy indil population bi nekk biir Kédougou en matière de de d'emploi quoi xale yooyu lu leen jox en matière ci création mm-hmm. d'emploi ci création d'école ci formation bi nga xam ne moom la ñuy former les habitants de Kédougou et puis pour la partie logistique avec Maritalia dinañ waxtaanee un peu yan métier la ñu gën a rechercher mm-hmm. surtout ci transport logistique lan la secteur boobu soxla ok ça va permettre qu'il Euh, aux gens aux jeunes yi nga xamante ni soxna nañ liggéey rawatina côté Kédougou yooyu ñu mën a bàyyi xel bu baax euh, ci kon élément yi ngay indil 9 euh,